ci yàlla ñi gëm yàlla ñi bàyyi mooy yàlla gañ nekk di laal góor ci dubur mu aaye leen ko ñoom nag ba mu aaye lii mooy tontu nitam ñi de fa maa kaana nekkul fa maa kaana nekkul jawaaba qawmi tontu ak nitam ña illaa an qaalu illaa ndere ñu waa axriju génne leen aala lootin ñooñ loot de min xaritikum ñu tukkee ko ci dëkk seen innahum naka ñoom unaasun aw nit lañ yatataharuna ñun dineen laab laab lu ci laal góor de ñi ne nag ah, loot mii nañ ko génnee nañ ko génnee dëkk bi moom ak ñoñom ndax ñoom dañoo laab te ne duñ sëy ak góor de kon nag nañ leen génnee suñ dëkk bi rek gannaaw ñoom bëgguñ loolu loolu nag moom mu amee nag nga ah, noox daal ñaan leen yàlla ne yow yàlla yàlla nga leen xalak de yow yàlla yàlla nga dox sama digganteeg ñoom xatte sama diggante ñoom de mu wàccee ci ñoom mbugal mbugal leen de fa anjaynaahu tañ musal ko moom lut wa ahlahu am ñu ñoom ila mraatuhu ndere jabaram ja qaddarnaaha desal nañ ko minal gaabirina mu bokk ci way des ñi ca mbugal ga de mu bokk ci ñi ñi desal ñi ci mbugal ga de moom nag ñi ñi mbugal leen ñoom ñëpp bam des eh, eh, eh, yonent yàlla loot musal nañ ko moom ak ñu ñoom bam des jabaram ja waaye waahilatu de waahilata moom moom ci ñi ci ma la bokk de ndax gëmutoon yonent yàlla lóot wa am tar naa tañ taw alayhim ci seen kaw mataran taw de ay toj yoo xam ne ci sijil la jugee de fa saa bon na saa bon matarul munzirina taw ak ñu ñu waar ne ñu bañ de te mooy ñooñ lóot yàlla daal taw ci ñoom tawi ay doj ñoom ñëpp mu halak leen ñoom ñëpp ñi deedee xul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdu mbooleem xaaj yi cant yi ñeenti lillaahi ñenn yàlla wasalaamu mucc wasalaamu mucc ala ibaadi yi aji nekk la ci jaamam ala ibaadi aji nekk la ci jaamam alladi ñaa xam ne istaba tànn na leen de mucc nag nekk na yow yonent bi santal yàlla ci yàlla mbugal gi nga xam ne mbugal na ko yéeféer yi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla weddi seen yonent yi yàlla mbugal leen mbugal mu metti mi sant ci yàlla bu baax de nga xam ne tamit nañ defoon yéeféer yooyu nga xam ne ñoo weddoon seen yonent yi yéeféer na noonu lañ leen di def de ñooñ loo yàlla mbugal na leen mbugal mu métti ndaxte ñoom dañoo safaanee li yàlla bëgg yàlla dafa indi góor indi jigéen pour ñu sëy pour mën a am doom pour su si yàlla si li yàlla namm pour mu am ñoom nag loolu lay safaanee góor yi góor ak góor ñoom yi neen ay góor a góor rekk di sëyante loolu nag moo tax yàlla taw ci ñoom taw bu taw bu mu taw ci ñoom ndax la yàlla namm ñoom dañ koo bëgg dindi de bépp mbonteef gi nekk ci àddina ñoom ñoo ko njëkkee de ñoom ñoo njëkkee ñoom ñoo njëkk di kii ñoom ñoo njëkk di sol tubéy di ko wàccee li ñuy wax xawma jeg daawam xawma ñoom ñoo ko njëkk a def ci ci ci xeet wi ñoom ñoo njëkk jël seen karaw gi wat genn wàll gi wat genn wàll gi bàyyi ko mu nekk benn njubbu ci kaw hmm? tabala tabala tabala ñoom ñoo ko njëkk ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko njëkk a def ci kaw suuf yu bon yooyu yëpp ñoo ko njëkk a def ak laal góor ci dubur de loolu yëpp ñoom ñoo ko njëkkee moo tax yàlla mbugal leen mbugal mu métti moom mu leen def sëy ak góor nag moo gën a bon ci mbooleem bàkkaar yi yonent bi nee na sallallahu nit sëy ak moo gën mu sëy góor te nit bu njaaloog yaayam dana am dana am bàkkaar ak ku njaaloog juróomi téeméeri jànq waaye loolu yëpp sëy góor sëy góor sëy looloo ko gën a bon loolu moo ko ëpp bàkkaar de imaam Malik nag wax na ne ki ko def ak kañ ko def ñépp dañ leen di jam doj bañ dee moo xam mu sengewu wala mu ñàkk sengewu dañ leen di rey Shafi ak Ahmad ibn Ambal nee na atte njaaloo lañ koy def su fekkee ne dañoo sengewu dañ leen di jam doj bañ dee su fekkee ne nag sengewuñ dañ leen di dóor de dañ leen di dóor téeméeri yar Abu Hanifati moom dafa rotal gëtë nga joom nee na dañ leen dañuy dagg seen awra rek su boobaa rek ñoom loolu lañu leen di def rek boobaa duñ sëyati loolu lañ leen di def rek de ndax ñoom lañ méngoo di def dafa bon de moo tax ku nekk war na di di maytu bëtam bi di ko gëm léeg-léeg loolu lu ko waral mooy ñoom dañ daan jël seen bët yi di ko xool góor ñi bu ñu leen wanee gannaaw loolu nag buñ ko xoolee seen bët yi dem ci seen xel mi dem ñu ne góor ñi foog ñu sëy ñoom loolu moo leen indi loolu moo tax doomu aadama bu nekk war na sa moromi góor bul xool mukk jëm ci moom di jëm ci moom di xalaat di jëm ci moom yu ñaaw yooyu ñoom loolu moo leen waralal loolu de moo tax ñu koy def de moo tax képp koo xam ne bëgg na rek bàyyi mi ne su fekkee mi ne ku nekk fekkee bëgg na rek na takk de na takk rek jabar te bàyyi góor ñi yi ngay ni yi ngay ni yi ngay di seen mu ne loolu baaxu de ndax bàkkaar ba ci ne te dafay indi feebar bu bon góor gi ñu koy def dana feebar feebar bu bon dana ci jëlee dem ba nga xam ne butitam yi nga xam ne ñooy tey lekk gi day yàqu su boobaa fu mu toog rek day kuusur loolu rek lay def comme lu ñuy def xale yi ci loolu rek lay mujj moom góor gi koy def tamit dana dem ba siritam bi nga xam ne moo koy def dana dem ba ñàkk kattan ñàkk doole te dafay yàqu daf koy indil feebar ndax fa mu war a dugg moo tax barab bi ko yàlla bindal pour mu dugg fa bu fa duggee du yàqu waaye barab bi mu ko bi mu ko bindul na ko bu fa dugg bu fa dugalee rek am problème de kon nag mi ne daal ku bëgg rek bànneex rek na takk de na takk rek mi ne nag jabar ju bon moom jigéen ju bon mbooleem balaa yi ci àddina yépp ci jigéen ju bon eh, eh, eh, mooy jigéen ju bon ju bon moom ba balaa yi mooy musiba bi gën a rëy ci àddina jigéen ju baax it mooy teraanga gu gën a rëy ci àddina de Seydina li wax na ne juróom yi mooy texeeg àddina képp ku ko am ci doomu aadama rek am nga teraanga àddina de mooy nga am jabar ju baax te rafet boo xam ne boo koy xool sa bëdi day boo koy xool sa xool dana kontaan jabar jooju mu ne jabar ju baax boo xam ne lépp loo ko digal dana ko def loo ko tere mu bàyyi ko te it boo tukkee dana sàmm sa gannaaw de mu ne jabar jooju jabar ju baax la ku ko yàlla may ci àddina am nga teraanga de am tamit ay doom yoo xam ne doom yu baax lañ dañuy topp sa ndigal lépp loo leen digal ñi def ko luñ la loo leen tere ñu bàyyi ko de ak am ay dëkkandoor yu baax ay ay mbokk yu baax kon nga am leen mbokk yoo xam ne dañuy dëppoog yow ci lépp loo bëgg rek ñu dëppoog yow duñ uutee yow ci dara ak amit ay dëkkandoor yoo xam ne dëkkandoor yu baax la yu yiw la sa wërsëg yi nekk si sa dëkk mu ne juróom yi képp ku ko yàlla may rek may na la teraanga àddina de yàlla nañu ko yàlla may ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ndax yonent bi wax na ne wërsëg yi bi ko yàlla bindee yàlla daf ko sànni ci àddina bi am na ñoo xam ne seen wërsëg dëkk bañ juddoo fa leen ko yàlla sànni dañuy ci dëkk ba la ñuy amee lépp lu ñu am teraanga lu ñu am lépp seen dëkk lañ koy amee am na ñoo xam ne nag seen wërsëg yàlla daf koo génnee ci bit ci beneen réew moo tax duñ ko jot mukk lu dul génn nañ ba dem ci réew boobu pour jot ko pour mën a ñëw de kon mi ngi noonu noonu la leen yàlla def de buur ne allahu ndax ndax jaamu yàlla xayrun moo gën amma tushrikuuna ca la ngeen bokkaal de ndax jaamu yàlla moo gën ci yi ngeen lii ngeen i bokkaale yàlla moo gën de jaamu yàlla de moo gën de fuñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa ne allahu xayrun wa ala wa ajal wax leen ko allahu xayrun wa ala wa ajal yàlla moo gën te moo gën a kawe moo gën a màgg de aman xalaqa am ka bind na asamawaati asamaani juróom-ñaar wala dégg suufi juróom-ñaar wa anzala tam wàccee lakum ñee leen min asamaai tukkee koo ci asamaan maan ak taw fa anbat naa tam saxal bii ji taw ba xadaayiqa ay tool zaata bahjatin yey borom ak taar de maa kaana nekkul lakum ñee leen an tunbitu ba ngeen saxala ko ba ngeen saxala a shajaraha garabam de a ilahun ndax ndax yàlla ma allahi aji nekk la ànd yàlla de manam déedéet loolu rek moo ci topp mi e, yàlla mi nga xam ne mine yàlla jaamu yàlla wala jaamu xere mi ban moo ci gën yàlla moo gën de yàlla moo gën jaamu xere yàlla mi nga xam ne moom moo ah, bind asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar kan moo ko bind dafay laajte kan moo ko bind yàlla moo ko bind moo bind asamaani juróom-ñaar yàlla moo bind suufi juróom-ñaar moo leen wàcceel taw bi mu bàyyeekoo ci asamaan mu saxalal leen ay meññet ci kaw suuf ci ay meññet ci kaw suuf ay gàncax yoo xam ne ay borom taar la te yéen ne mënu leen koo saxal de kenn ci ñun mënta saxal gàncax. lu dul yàlla rek moo ko mën a saxal de moom yàlla de bal bàyyilhum ñoom mu nit lañ ay yaadiluuna danañu bokkaale yàlla de ba koy toll léeg leneen de aman jaala am ka def na am ka bind na al arda suuf xaraaran mu dig saxwaay ba du yëngu toog wa jaala tam def xilaalaha ci diggante ñoom ñaar anhaaran ay sewnde wa jaala tam def laa ñeel suuf rawaasiya ay doj wa jaala tam def baynal bahrayni ci diggante ñaari géeje xaajisan aji diggale de muy géej ak xorom géej géej ak géej gu saf suga duñ laalante mu ko a ilaahun ndax yàlla maa laay aji nekk la ànd ak yàlla de bal bàyyil ak sarum gën ji bëri laa yàlla mun a xamu leen de yàlla jooju def lii ndax am na beneen yàlla bu koy dimbale déedéet amul benn yàlla bu ko dimbale de moom rek la de aman yu jiibu am ka dana a yu jibu am ka dana mu nangu am ka dana mu nangul ñaan al mutarra aji loru ti ñaan ida daaw ndem ñaan na de wa yakshifu ta mu ñi assu a tattat ci moom ak keneen ku dul moom wa yajaalukum tam def leen xulafa al ardi ngeen way wutu suuf de yàlla nag ne mu ana kan mooy koo xam ne bu loroo nekk ci ay xat-xat ci ay jafe-jafe moom rek ngeen di ñaan mu dindi mu dindil leen tawat yi ngeen nekk ak tattat kan la kooku yàlla rek la de yàlla moom moo leen di dindil njàqare yi ngeen nekk mu ñil leen njàqare yi ngeen nekk dugal leen ci xéewal yàlla rek moo koy def de te moom moo leen def tamit ngeen mu kuutale leen ci kaw suufam si de maas topp maas maas topp maas maas ba dem beneen maas ñëw noonu la ko defee de ba bis tey bii a ilaahum ndax yàlla a ma allaahi aji nekk la ànd yàlla de xalilan sant a a a xalilan waar gëji waar gëti aji néew maa tazakkaruna waaru leen de waaye ñu néew ñoo waaru nag ci lii kaw bi yàlla yëpp ñi néew rek ñoo ci lii yëpp kenn deful ko ku yàlla rek moo ko def de amul benn yàlla boo xam ne ñëw na di dimbalanteel yàlla ci yu mel nii kenn dimbaluwul yàlla lépp yàlla moo koy def de kon yàlla nee na dana nangul ñaan képp koo xam ne loru na jëm ci moom dana la nangul ñaan de mooy koo xam ne dem na ba nga xam ne amul benn pexe amul kenn ku ko mën a dimbalee ku dul yàlla rek subhanahu wa moom moo ko mën a dimbale de loolu nag ñooñu nag buñ tollee foofu yàlla daf leen nangul ñaan loolu mooy meloo wëliw yàlla yi ak aarifina billaahi nga xam ne ñoom dara nekkul ci ñoom lu dul yàlla rek moo nekk ci ñoom ñoom yàlla rek lañ bëgg xooluñ leen gisuñ lenn yàlla rek lañ xool loolu moo tax bu eh, buñ loroo ñoom aarifu ne yooyu wali yooyu buñ loroo rek dañuy gaaw rek dem ci yàlla rek buñ ñaanee yàlla rek yàlla gaaw nangul leen ci sens yi ndax ñoom seen lépp yàlla gisuñ kenn ku leen mën a dimbale ku dul yàlla moo tax bu buñ ñaanee rek yàlla nangul leen de ci loolu nag ci la yonent bi bés mu wax ak saxaabaam yi min ne xubbiba ilayya min addunya thalaathun annisaau wa tibu wa qurratu ayni fi salaati yonent bi sallallahu nee na bëggaloo nañ ma ci àddina waxu ne damaa bëgg dañ maa bëggaloo kon nañ déglu wax yonent yi waxu ne damaa bëgg uhibbu waxul loolu daf ne xubbiba bëggaleef nañ ma ci àddina ñetti yëf lañ ma bëggaloo ci àddina mooy jigéen ak gëtt sama xol nag mi ngi seddee ci julli jigéen mi ne li tax mu bëgg ko mi ne ndax taaru jigéen daf koy fàttalil taarab yàlla bi moo tax bu koy xool taari yàlla bi da koy fàttali moo tax mu bëgg jigéen gëtt nag mi ne lu tax mu bëgg ko malaaka yi moom lu bari te malaaka yi dañoo bëgg xet malaaka yi ku am xeeñ nii duñ la jege moo tax di laal parfum bu neex baax na ndax malaaka yi dañoo bëgg xet bu neex ci nit surtout malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo lay indil wërsëg moo tax mi ne xet boobu daf may fàttali eh, eh, eh, xet ak malaaka de loolu moo tax mu bëgg parfum moo tax foofu fekkaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay parfum ya jëmmam jële ñu ne waaye nag sama xol ci julli day seddee bu may julli ci ci lay seddee de waxul ne julli mooy seddal sama xol waaye ci biir julli bu ma nekkee di julli loolu mooy seddal sama xol bi de Aboubacar moom itam ne ko yow sama sang kon yonent bi ñett yooyu la wax ne moom lañ ko bëggloo ci àddina mooy jigéen ak gëtt te xolom ci biir julli lay sedde abubakar na ko yow sama sang man bëgguloo nañ ma ci àddina ñetti yëf mooy di la xool rek jëm ci sa xar-xaram ak toog ci sa kanam ak jël sama alal yëpp di ko dundale ci yow de man lii bàyyi mi gis nga moom léppam yonent bi la ko jox ma lay xool rek man naa lay xool rek loolu doy na ma ak toog ci sa kanam ak lépp lu mu am rek dundale ko ci yow de Omar ibnul Xattaab ne man ñetti yëf lañ ma bëggloo ci àddina mooy xool jëm ci waliyu yàlla yi ak di mbugal noonu yàlla yi di leen mbugal ak dimit di taxawal gëtë eh, eh, dëxëri yàlla yi mooy di topp ndigalam di bàyyi ay tere man ñetti yi laa gën a bëgg ci lañ ma bëggloo ci àddina Usmaan radiyallahu anhu mi ne bëggloo nañ ma ñett yëf ci àddina mooy nuyoo ku ma romb nuyu la ak di lexele ñam ak julli ci guddi seen nit ñaa ngi nelaw wasalaatu bi leyli wannaasu niyaam julli ci guddi fekk ñi ñi ngi nelaw man ñett yi lañ ma bëggloo ci àddina Seydina Aliou moom radiyallahu anhu mi ne man bëggloo nañ ma ci àddina ñetti yëpp mooy jël sama jaas yi di ko dóor mooy xare rek di xare ji gis moom léppam xeex la ak tamit or noor noor xam nga dafay tàng jël ak or noor ak ganere gande ak lam ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk mi ne wa ikraamu day bi de ak teral gande moom ñett yi la wax ne mu bëgg jibril kat ñëw dugg si waxtaan wa jibril moom itam dugg ci si waxtaan wi ne ko ñëw ci yonent bi ne ko man bëgg loo nañ bëgg naa ci seen àddina bi seen addina bi yéen bëgg naa ci ñetti yëf mooy lan mooy jubal képp koo xam ne damaa fekk ku réer la rek mu jubal ko ba mu tegu ci njub ñetteel bi mooy dimbale miskin miskin mu amul dara ma dimbale ko ak tamit di wettili koo téeréeb yàlla bi de eh, di wettili koo wax yàlla ji mooy di jàng alquran ñett laa gën a bëgg jibril daal di fàttu dellu ci yàlla mahallu shahid baa ngi nii nag eh, mu dellu ci yàlla yàlla ne ko eh, mu mu mu ne ko damal nga nuyul ma leen ngeen wax leen ne leen man bëgg naa seen àddina bi ñetti yoon jibril ñëw ne yàlla mi ngi nuyu nee na moom bëgg na ci seen àddina bi ñetti yëpp bi ci njëkk mooy ronk ñi aji mooy yàlla koo xam ne mooy na yàlla ba pare di jooy mi ne jooy yooyu daf koo neex ñaareel bi mi mooy mbugal ñi nga xam ne dañoo bàkkaar te amul te di bàkkaar ba pare te tuubul di koo neex ndax ñàkk di ñàkkutu ñetteel bi mooy nangoog ñaani ku loru de kon mahallu shaahid baa ngi nii wax ji yëpp lii rek lañ bëggoon indi mooy yàlla nee na bëgg na tamit moom di nangul ñaani kuñ tooñ koo xam ne dañ koo tooñ koo xam ne dafa loru kon ñaanu ku loru koo xam ne loru na ba nga xam ne yaakaaru kenn ku du yàlla mu ñaan loolu bu ma koy def damay kontaan damay gaaw rek nangul ko de <coughs> ci loolu la yonent yi waxee ne nañ nañ tamit di di wëttandiku ñaani kuñ tooñ ndax diggante mook yàlla benn ijaab amul fa de kuñ tooñ bu ñaane yàlla rek yàlla daf koy nangul de aman yahdi aman yahdikum kan mu dana mu jubal leen a ana kan mu dana mu jubal leen ngeen dem seen maqasid fi zulumaatil barri ci lëndami jéeri wal baxri géej de <clears throat> ana kan moo leen di jubal bu ngeen nekkee ci lëndami géej ak jéeri kan moo leen jubal ba ngeen mën a dem xam fi ngeen jëm kalla kooku yàlla rek la de wa man yursilu wa man yursil ana kan mu dana mu yónnee arriyaaxa ngelaw al mushiran muy aji fasanti ko bayna yadee rahmat ci njëlbeen ak tawam ana kan bu ngeen taw ana kan moo leen di taw boobu ci yàlla dajale ngelaw yépp ñëw tawal leen kan la de a ilaahu ndax ndax yàlla a ilaahu ndax yàlla ma allah aji nekk la ànd de taala jomm allahu yàlla amma yushrikuna te da ngeen bokkaale ko de jomm na ngeen di bokkaale yàlla kenn yàlla rek mooy def loolu de aman yabda'u ana kan mu dana mu sos alxalqa mbindee fi summa yu'iiduhu topp mu delloo leen gannaaw bañ dee de ana kan moo leen sos loon di dara seen ruumu ndey ci toqantal ma niw gannaaw gi mu delloo leen gannaaw gi mu mu mu leen gannaaw gi mu dekkal leen de yàlla rek la wa man yarzuqukum ana kan mu dana mu wërsëgal leen mina samaa'i mu tukkee ko ci asamaan ci taw wala dégg suuf ci gàncax ak ilaahu ndax yàlla ma allaahi aji nekk la ànd ak yàlla de lii yëpp tontu yi mooy yàlla rek moo koy def de ñoom defuñ dara indiwuñ benn lay wane ne yàlla eh, eh, eh, yàlla li muy def seen yàlla yi ñu ngi koy dimbale këram yaa ngi koy dimbale lépp yàlla moo koy def de moo tax ba yàlla indee ay layam teg ko ba pare qul waxal haatu dikkee burhaanakum lay seen de in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëgg di way dëggal de ace indi leen lay man indi naa samay lay yàlla indi na layam te yéen indi leen seen lay de duñ ko indi mukk lépp yàlla moo koy def subhanahu wa taala de qul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaalamu xamul man fi samaawaati ña nekk ci asamaani juróom-ñaar wala ardeeg suufi juróom-ñaar ci malaaka ak nit alxayba fàttu gaa moom péncam yàlla da illallahu ku dul yàlla wa maa yash'uruuna xamuñ ko ñoom yéeféeri màkk rek ak ñeneen ñi di ñoom ayaana yu baasu na kañ la yàlla di dekka nit ñi ñoom xamuñ ko de bàyyi e, e, yàlla alxuraan nag wax ne ne ne ne ne ne kenn ko xam xaybu kenn xamul xaybu ñu nekk ci asamaan ak suuf amul kenn ku ci mën a xam xaybu de ku dul yàlla rek moo ko xam yéeféeri màkk yi ak ñu dul ñoom ñëpp xamuñ kañ la yàlla di dekkal mbindéef yi de xaybu nag kenn xamul ko ku dul yàlla xaybu juróomi xaybu la xaybu mooy lépp loo xam ne fadd loo xam ne na la rek loolu mooy xaybu lépp lu la fadd rek loolu mooy xaybu xaybu <clears throat> juróomi xaybu la comme xay bu koo xam ne ci suuf la nekk daf laa fàddu waaye mi ci kaw suuf ni ki dëkk wala jëmmi nit ki comme ku mësta dem Dakar kooku Dakar xay bu la ci moom xamul ko ku mësta dem Màkka tamit Màkka xay la ci moom wala jëmm joo xam ne dégg nga ko te gisagoo te gisagoo ko dégg nga turam te gisagoo ko loolu xay la ci yow xay bu ñaari xay bu nag nit mën naa bëree ba xam ko tey jii ku xamul Dakar ni mel man ngaa paas léegi dugg oto rek dem xam ko ku xamul jëmm ni mel boo bëree ba fekk fa nekk man nga koo xam ray bu la woon ci yow waaye ba nga ko xamee nekkatul ray ci yow ñaareel ray bu nit mooy ray koo xam ne mi ngi ci asamaan asamaani àddina bii niki xam niki biddiw yi nga xam ne mooy ilmu nujum nga xam ne loolu ray la ci yow li nekk ci asamaan ci biddiw ak yu mel noonu yooyu yëpp nga xam ne mi ngi fa ray la ci yow xamoo ko waaye boo demee ba jàng ko ba xam ko danga nga xam xam-xam boobu kon daf laa fàdd woon waaye ci xam-xam nga ko xamee ñaar ñetteele xaybu gi mooy xaybu gi nga xam ne ci diggante asamaan ak suuf ci la nekk mooy nit ki mooy jëmmi nit ki nga xam ne yàlla def na ci moom lu nëbbu ci moom te xamu ko yàlla def na ci moom ay jikko yu sell def na ci moom ay mbóot def na ci moom ay kii def na ci moom ay xaqaayiq def na ci moom ay maarif yooyu yëpp nga xam ne kawteef yàlla yu bëri yàlla mi ngi ko denc ci moom sa nurihimu ayatina eh, fi eh, fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaqu nga xam ne yàlla def na ko waxoon na ne dinaa leen wan samay kawteef ci gox yi ak seen bopp ci boppam kawteef yàlla yi yàlla def ci yow yàlla nëpp na ko xaybu la ci yow xamoo ko loolu nag noo koy xamee mooy boo góorgóorloo jihaat ak sa bakkan jihaat ak sa bakkan ba ci yàlla jikko yooyu nga xam ne moom la yàlla def ci yow te mu nekkoon xay bu ci yaw eh, dana jàpp ni pour nga jot ko waaye nag yaa ngi koy amee ci yoonu tarbiya nga koy amee ci yoonu tarbiya dem jàpp ci sëriñ ba mu dindi kiraay bi dox sa diggante borom nga mën a xam xay eh, eh, bi gi nga xam ne moom la yàlla dencoon ci yow ci ay mbóotam ci ay xaqaay ay maarif de boobu xay bu tamit nit mën naa dem ba jot ko ñeenteeli xay bu gi mooy mooy mooy xam malaaka yi nekk ci malawul ak ruuxaaniya yi ci nekk loolu tamit xaybu la waaye lenn ci jaami yàlla yi eh, ak ci walliwoom yi ci yonantu yi lenn ci yonante mi ak walliw yi yàlla xamal na leen xaybu googu ah aalimul xaybi falaa yudiru ala xaybi illa man irtada min rasuli ah, ah, lenn ci xaybu yàlla am na ñu ngi ko woon ci ay jaamam mooy ñi nga xam ne ñun gërëm lañ de kon ñeenti xaybu yi yëpp jaam bi mën naa bëree ba xam ko benn xaybu boo xam ne nag kenn xamu ko du malaaka du yónnantu du waliwu du kenn mooy pencam yàlla kañ lay taxaw de laa tatikum illa baatatan laa yaalamu man bi samawaati wal ardi al xayba illa allah de kenn xamul xaybu ku ñu nekk ci asamaan ak suuf kenn xamul xaybu googu kañ lay pencam yàlla di ñëw ku dul yàlla rek moo ko xam de bal bàyyil idraaka ilmuhum fi l ñoom réeree nañ àllaaxira de bàyyi mi ne firikat bi ba tey firiwul baat bii ba tey firiwu ndax lu muy mooy jumla joo xam ne day ñëw di firi benn firi mi ne firikat bi firiwul baat bi ba tey bali daa bali daaraka ilmum fil ak ni ki ka suqita fi aydihim ak wa daramna ala adanihim eh, eh, eh, mi ne ñetti ñetti baat yooyu mi ne mi ne mi ne firikat ba tey de bel bàyyi idraake en moom fil axirati réeree nañ àllaaxira ñoom réeree nañ àllaaxira ñoom yéeféeri màkke yépp réeree nañ àllaaxira de bel bàyyi dum ñoom fii shakkin aji nekk lañ ci sikk min a ci àllaaxira de ñu ngi sikk àllaaxira ba tey bal bàyyil hum ñoom amuuna way gumba lañ min a ci àllaaxira de da seen xol yi dafa gumba ci àllaaxira wa qaala wa alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ida kunna ndem nekk nañ turaaban di wa abauna ak i baay a inna ndax ñun la muxrajuna ñun génnee la ñu tukkee koo ci bàmmeel de laqad wa inna ñun de tëkkoon nañ ñi haada lii nax wa abauna ak i baay min qablu ci njëkk inna haada naka lile illa asatirul awalina nari maawi njëkk yaa la de ñoom nag ñi weddi dekki lii rek la ñuy wax de ndax ñun buñ nekkee di suuf eh, nekkoo nekk di suuf dañuy ba ba dee ba max ba ba ba maxee ci biir suuf ba ba yàpp ndax ñun kenn mën nañoo dekkalaat suñ bàyyee dee woon ba tey kenn dekkulu leen de nit ñi doon lii daal nit ñi tëkkoo naan dinañ dekki tëkkoo woon nañ ko suñ bàyyi ñun ñii tamit tëkkoo nit ñu ko ba tey gisaguñ dara ah ñoom dañuy wax rek dara amul de duñ dekkiwaat de xul waxal siiru dox leen fil ardi ci suuf fanzur xool leen kayfa kaana naka lay nekkee kayfa kaana naka lay nekkee aqibatul mujrimina kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mujrimina mujj ak way way bàkkaar ñu de mooy dana leen mbugal mbugal mu métti rek ca pencam yàlla de wala taxzan bul jàq yow yonent bi wala taxzan bul jàq alayhim ci ñoom wala takun bul nekk fi fi dayqin ci tiis mimma yamkuruna te leneen pexeel la ko de lañ lay pexee noonu bul ci bul ci tiidde bul jàq ci ñoom tamit ndax ñoom seen pexe yooyu du mucc fenn ñun yàlla ñoo lay dimbale ba seen pexe yi duñ la laal de wa yaquluna xal naa wa mata hadal waxtu moo añ a kañ la gi la dëxal in kuntum dem nekk ngeen saadiq ne di way dëggu de eh, li ngeen ñi dëxalee mbugal mi ngeen ñiy dëxalee ne da ngeen ñu ko indil mbugal moomu kañ lay ñëw su fekkee wax ngeen dëgg xul waxal qul wa asa an yakuna amaan na mu nekk ah radifa di aji jege ko ñeen leen baadu lazi lenn la nga xam ne testaajilu na da ngeen yàkkamti ko de buur ne yooyu yonent bi wax leen sax ne leen man naa am loolu ñi yàkkamti mbugal moom ñu yàkk jege na ci ñoom jege na ci ñoom de te jege na ci ñoom de mooy xare badar rey na leen ca jaasi ja ñoom ñëpp ñi dee bañ dee rek dem nañ àllaaxira ndax àllaaxira ñett xaaj la bu mag ak bu di ak ak ak bu ndaw ak bu digg doomu bu mag bi mooy bu ñëpp dee loolu mooy àllaaxira bu mag bu digg doomu mooy bu ñu walee bufte bu ndaw bi nag mooy nit ki bu dee de ku dee rek sa àllaaxira taxaw na de comme ñoom tamit man naa am loolu ñu yàkkam ni ci mbugal jege na ci ñoom de te jege na ci ñoom rey na leen ko rek ca badar de mbugal ma ca des nag gannaaw buñ dee ba ñëw pencam yàlla dana leen dikkal de way na rabbaka naka borom sa lazu walakin na waaye lu fi nekk ak soroom gën ju bëri ci ñoom laa yashkuruna santuñ def wa inna rabbaka naka borom sa la yaalamu dana ma la yaalamu dana mu xam maa tukkinu la da ngeen nëbb ko sudurum ay dënn seen de lépp lu ngeen di nëbb si seen biir dënn yi rek yàlla xam na ko wa maa yu'linuna ak la da ngeen feeñal ko ci seen i làmmiñ de wa maa min ghaibatin déet ak aji faddu fi samaa ci asamaan wala dégg suuf illa fi kitaabin ndere nekk na ci téere te mooy lawil mu binun mu di luñ biral de amul dara lu fàddu ci asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak lum mën a doon lum tuuti tuuti ak lum ndaw ndaw loolu yàlla bind na ko ca téere boobu ci lawil mahfuus de dara nëbbul ko moom yàlla de inna hada alqurana naka gi de alquran mu solo ala bani israila ci bani israil ñi nga xam ne ñu ngi teew ci jamono yonent bi ak sara alladi gën ca laala hum ñoom yaxtalifu na ñu ngi wuutee ci moom de ñoom nga xam ne bëri nañ luñ daan uutee di uutee waaye bu alquran ñëwee ba leeralal leen ko lañ doon uutee noonu dana dañ de wa innahu naka moom alquran lahuddan aji jubal la mu tukkee koo ci réer wa rahmatun tey yërmaane tey yërmaane lil muminina ñeel way gëm ñi de inna rabbaka naka borom sa yaqdi dana mu àttee baynahum diggante seen bi xukmi ci maanoom de huwa te moom al aziz mooy aji not ci nguuram al alim mooy aji mooy aji xereñ ci njëfteefam de wa tawakkal dëgërlul alallahi ci yàlla yow yonent bi innaka naka yow alal innaka naka yow alal xaqi aji nekk nga ci dëgg al mubini ngay aji bidde bàyyi mi ne kooku moom am na yaakaar bu rëy rëy rëy rëy ko yàlla wax na ko yow moom yaa ngi ci dëgg innaka naka yow la tusmiu defu dégguloo al mawta way deeñi de yéeféer dee nag nga xam ne ay néew lañ yoo xam ne dañ leen a rob seen biir jëmm yi dañoo dee ba pare ànd ak yaa ngi leen gis ñuy dund waaye ñoom dañoo dañoo dee yow mënoo leen a déggoo déggloo de niiw kenn mënu koo déggloo niiw bu dee ba nëb koo kenn mënoo wax ba mu dégg de wala tusmi defut déggloo asumma wayta doaawoote de ida wallaw donte daddu nañ mut biri na ñi di way daddu de ku tax timit mënoo kaa dégloo xam nga ku sax ñaareel boo jàkkaarloog moom di wax dana xam ne kii am na lu muy wax dinaa gëstu xool lu muy wax waaye ku tëx ba pare em ci dëddu la daal di dem wane la gannaaw kooku du la dégg de arko baay mi ne alquran fa saaxa te moo xereñ ni muy waxee de wa ma anta déet yow yonent bi bi haadil umi yi ngay aji jubal way silmaxa an an an an an ci réer seen de ñe silmaxa nga xam ne gumba nañ ñooñu mënoo leen a jubal de in tusmiu déet ngay dégguloo illaa man yuminu ndere ka gëm na ndere ka dëggal na bi ayatina ci alquran suñu de fahum ñoom muslimuuna way sellal leen ak wéetal yàlla de yow nag mënoo dégguloo kenn lu dul koo xam ne gëm na yàlla rek tey sellal loolu ñooñu rek nga mën a waaye ñii nga xam ne dañoo dem ba tëx dee nga xam ne ay niw yu seen biir ñooñu mënoo leen a dégloo wa ida waqaa ndem tàbbina alqawlu baatam mbugal ba alayhim ci ñoom baatam mbugal ba nag bu tàbbee ci ñoom mooy mbugal bi nga xam ne yàlla war na leen koo mbugalee a axraj naa ñu génnee lahum ñeen leen daabatan daaba min min al ardi mu tukkee koo ci suuf tukallimuhum jooj dana wax ñoom de bokk na ci màndargaay pencam yàlla bokk na ci màndargaay pencam yàlla lii wane ne pencam yàlla jege si na mooy dàbba génnee ci biir suuf di waxal ak nit ñi de gëlëm ak yonent yàlla saalix gi ñu leen jàngaloon barki démb nettali waa waxoon naa leen ne leen ba ñu reyee ndeyam rek dafa yooxu ñetti yooxu rek daw dugg ci doj wa du ci génn nag lu dul boo xamee ne yàlla mu ngi bëgg tukkal àddina bi ci la koy doji safa di matu dana ko matu ñetti fan la koy doji safa di matu mu génn bu ñëwee nag <coughs> mooy mu yonent wax na ne Isa dana ñëwaat ibnu Mariam dana ñëw buy ñëw ne dafay fekk nit ñi ñu ngi nekk ca Kaaba ga di wër Kaaba ga nit ñu bari daneen ànd ak moom ñu toog rek dégg yëngatu yëngatu suuf bu rëy ndeke jabalu doji safaawi <coughs> ndeke doji safaawi moom mooy matu daab boobu moom moo koy génnee ñetti fan nag la koy matum génn ñi ñëpp tiit ñee ngi jooy ñee ngi julli ngi def lu ne ngir tiitaange ndax moom xam na ne bu ñëwee rek pencam yàlla taxaw na de bu ñëwee nag ba génn mu nga yore etu yonent yàlla Moussa bi moom lay yor ak jaaru yonent yàlla Suleymaan bi moom lay yor képp kuy jullit mu bind sa xarxaram ne muminun billah moom lay bind sa xarxaram képp kuy yéefeer mu bind na kaafirun billah kii kaa ay weddikat yàlla kii yéefeer ba nga xam ne ñey dund ci waxtu woo ñëpp buñ gisee jullit dañ ko xàmmee buñ gisee yéefeer dañ ko xàmmee bàyyi mi ne loolu gàcce la gàcce gu rëy la booba muy wax nag moom moom gëlëm ga naan buntu tuub tëju na de tëj nañ buntu tuub mu ne képp kuy tuubati rek duñ la nangul tuub tëj nañ buntu tuub de kenn du tuub ndax buntab tuub fi mu ne mi ngi ubbeeku ca bay fay jant bi di fenkee yàlla nga fa ubbi buntab tuub ku xëy rek man ngaa tuub loo def ci bàkkaar yàlla baal waaye dàbb bu bu xasee génn ci kaw suuf yàlla dootul nangu ci tuub kenn képp ku tuubit yàlla du la nangul de moom loolu lay wax de ne bunta tuub tëj nañ ko kenn dootul tuubati de ku tuubat ba bési tey bii yàlla dootul nangu tuub de moo tax eer boo xamee ne musiba bu màgg boobu xew na keroog boobu ba dàbb bi di wax ak ñoom keroog mbugal mi dana daal seen kaw de waskur jàngatal yow ma naxshuru bés ba dem na pang min kulli ummatin tukkeekoo ci bépp xeet fawjan mbooloo min man yu kazibu ka dana mu weddi bi ayaati naa ci ci kaawteef suñu de fahum ñoom na def nañu boole leen de ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñëpp dañ leen boole ñoom ñëpp màng leen jëmee leen ci yàlla de ñëpp daneen dem ci yàlla hatta ida jaahu dem dikkal nañ baraba xisaab ba xaala wax yàlla ñeen leen ak kasabtum weddi ngeen bi ayaat yi ci kaawteef sama de mooy sama yónnentu ak téere ya ma leen joxoon walam tuxiitu te léemu leen bihaa ci moom ilman ilman ak xam de weddi ngeen sama yónnentu yi ak téere ya ma leen joxoon te yéen sax ba ngeen leen di weddi amoo leen xam-xam ci li ngeen di weddi da ngeen waroon a fexe am xam ci li ngeen di weddi waaye amoo leen xam-xam ci li ngeen di weddi de moo tax weddee googu képp kuy weddi rek na fexe lu muy weddi mu am ci xam-xam njëkk waaye su fekkee yaa ngi wéeti dara te amoo ci benn xam-xam loolu baaxul de yàlla mi koy ŋàññee yéeféeri ci àllaaxira ne yéen weddi ngeen te li ngeen di weddi amu leen ci xam-xam gëstu leen ba xam ko de sokkaa weddi waaye di ngeen a tëb rek topp seen ba bakkan rek weddi de amma zaa ana lan kuntum ngeen nekkoon te amalu na doon jëf de ana lan ngeen nekkoon di jëf lan ngeen nekkoon di jëf ba ci la ma leen digal la leen digal lan ngeen ci jëf de mooy jëfuñ ci dara loolu nag bi ba yàlla xamee ne lam leen digaloon yëpp defuñ ko fa waqaa daal di yee fa wa ah, fa waqaa daal di tàbbi alqaw ah wa waqaa ah, wa waqaa daal di tàbbi wa waqaa daal di yee alqawlu baata mbugal bi alayhim ci seen kaw de mooy baat ban eh, la am la ana jahannama dinaa feesal sabar de baat boobu dana tàbbi seen kaw de bi ma zalamu ci sabab ci weddi seen ci sabab ci bokkaale seen de foofu ñoom laa yantiquuna defuñ wax de deful indi benn lay ci loolu yàlla wax leen ko de awalam yaraw a alam yaraw kanaa gisoo an naa ñu jaal naa bind nañ allay la guddi li yaskunu ngir ngeen noppalu fii ci guddi ga de yàlla bindal na leen guddi pour mu defal leen ko ngeen muy barab boo xam ne da ngeen ciy noppalu wan nahaar ak bëccëg mubsiran ngeen ni aji gis de nga xam ne dangeen ngeen ciy dem di soppandiku pour amee ci lu ngeen dundee de inna fi dalika naka nekk ni ci loolu ñu tunoon l la ayatin tegtal gi tegtale kàttanam li qawmin ñeel nit yu mu ne ñoom dineen gëm de wa yawma yunfaqu bés ba def na wal fi suuri ca boftu ca ca ca buftu wa fa fasia te dee doo ko te tiit de fa fasia te dee man fi samaawaati mbooleem ñu nekk ci asamaani juróom-ñaar wa man fi laarde ak ñu nekk suufi juróom-ñaar de ñëpp dee mu ne nag fàttalikul bés boo xamee ne israfil wal na buftu ba ñëpp dee ndoo mu walaat ko ñëpp dekki de nee nañ ah, ah, ah, man fi samaawaati wal illaa illaa illaa man shaa ndere ko soob na ko allahu yàlla bu bu bu walee bufte ba nag ñëpp dee ba mu des ñi nga xam ne ñoo soob yàlla ñi ne mooy way shahid yi nga xam ne yàlla wax ne inda rabbihim yurzaquna ñoom seen boroom lañ nekk deewuñ yàlla di leen wërsëgal ñu ne mooy uurul ay nii ñoom la ñëpp daneen dee ba mu des ñoom ñu ne déeréet Moussa la yonent yàlla Moussa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li wax ci xadis ne bi yàlla walee bi bi biñ dekkee man maay ci suuf di njëkk a dekkil bi ma dekkee damaa dem fekk yonent yàlla Moussa ma nga jàpp ci benn keno ci kenoy aras xaw ndax dafa bokkul ci ñu dee walla lan waaye fekk naa ko waaye bàyyi mi ne li gën a wér mooy jibril la ak mikaayil ak israfil ak azrail mi ne ñeenti ñii la ndax yàlla bu reyee ñépp kii mujj dee kooku mooy iblis moom lay yàlla di def muy mujjatee ndax loolu la ñaanoon boromam yàlla may ko ko yéexee moom ba bés ba ngay dekkal nit ñi loolu la ba bés ba ngay dekkal nit ñi la ko waxoon yàlla bañ na ko dinaa la yóbbu ba bés buñ xam ba de yow maalum mooy bés bañ xam te mooy péncam yàlla moom nag buy dee ba nga xam ne Israafil rey na ñëpp moom rek mu des te yàlla loolu la ci bëggoon yàlla dafa bëggoon a xaar ba ñëpp dee mu dajale wextanu dee yi doomu aadama yi dajale yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mu mu jël ko jox ko iblis moom kenn iblis nag bi loolu amee malaku yàlla ebal malakul mawt ak juróom ñaar fukki junne yi malaaka ñoom la ñoom la yónni ñi ànd ak malakul mawt ku nekk yaa ngi yore xeej boo xam ne mi ngi am ay weñ danga koy dëpp iblis ba ñëwee ba malakul mawt ñëwee ba tiim ko ñi ngi meloo melo woo xam ne melo wu ñàng woo xam ne wu ñaaw woo xam ne doomu aadama bu leen gisoon sax dañuy tiit ba dee ba mu ñëwee xam ne malakul mawt yi moom la bëgg a rey mu dawee jugee fa jant bi di fenkee ba fa jant bi di soyee ba mu demee fekk fa malakul mawt mi ngi taxaw rek di ko xaar mu dawaat ba dem ba jant bi di fenk mu fekk fa malakul mawt mi ngi taxaw mu dugg ci biir géej muural boppam ba ci suufi saraa boobu ah fekk ba malakul mawti mi ngi taxaw na ko tey dee rek mu yooxu nag yooxu rëy na yow yàlla digal ma ma dem ci bàmmeelab aadama ba ma su jootal ko su ga ma bañoon digal ma ma dem su jootal ko nangu naa tey pour su jootal ko waaye keroog bés boobu du bésab tuub de booba tuub paase na rey rek ah malakul mawti nag daal di ko rey daal di ko jëm xeej xëcc juróom-ñaar fukki junne malaaka yëpp jam ñoom it di ko di ko buqi di dindi roxo gi di ko kacc muy yooxu yooxu woo xam ne yooxu wu métti la de ah biñ ko reyee nag ba mu dee malakul mawti ñëw ci yàlla ko fi mu naa ñëpp ñëpp dee nañ kenn desatu mi ne ko ku des mi ne ko jibril moo des ak mikaayil ak israfil ak jàmbu xeebu bi moo des ak boro ak buur bu màgg bi yàlla ne ko rayal mikaayil ray ko moom wërsëgi jaami laa ko joxoon te jaami gannaaw nekkatuñ fa ray ko mu ray mikaayil yàlla ne ko ku des mi ne ko jibril ak israfil ak jàmbu xeew bi ak buur bu màgg bi de mi ne ko demal nga rey israfil moom bufte bi rek laa ko santoon mu wal ko wal na ko pare damal nga rey mu dem rey mi ne ko ku des mi ne ko jibril ak jàmbu bi ak buur bu màgg bi de yàlla ne ko demal nga rey jibril ci yonent yi rek laa ko doon yonente yonent jeex na demal mu dem rey jibril mi ko ku des mi ne ko jàmbu xew bi ak buur bu màgg bi yàlla ne ko demal nga wër seet ba xam na am na kuy dund mu dem wër dugg ci biir asamaan suuf dugg fu nekk àddina bu yëpp ba dékkutut benn noxi kuy kuy yëngatu ah yàlla na ko la ma waxoon dëggal de kullu nafsin zaiqatul mawti bépp bakkaar dana mos dee de mi ne ko ku des mi ne ko jàmbu xeebu bii ak buur bu màgg bi yàlla na ko waaye man duma dee man duma dee damay dund te duma dee de yow deel yow rek mu dee de waaye ñoom benn waxtu rek yàlla dekk laa leen ñëw de ndax ñoom ñooy bëkk néegi péeb yàlla yu moo tax ñu yàgg benn waxtu rek ñu dekkiwaat ñëw de waaye bàyyi mi ne foog mu dëggal la ma waxoon kullu nafsin zaa'iqatul mawti de <clears throat> wa kullun képp ci ñoom aatu way dikkal lañ ko way dikkal leen yàlla daaqirin di way toro de ñëpp dinañ dikkal yàlla de wa tara gisaan nga jibaala doj tax si ba da nga njot leen jaamidatan ñi aji taxaw ci seen ab barab waaye ñoom te murru way romb lañ maras saxaabi comme romb ak niiri de yaa ngi gis doj yi nag ci kaw ci kaw suuf si ñiy doj yu ponkal nga yaakaar ni dañoo taxaw fekk taxawuñ de ñi ngay dox dox boo gën dox gën a gaaw dox yi nii di dox de sun àllaay eh, jëfi yàlla la alladi yàlla nga xam ne at xana lépp la innahu naka moom xabirun aji xam na mu bi ma ci lépp li ngeen jëf de man jaa ku dikkal yàlla eh, man jaa ku dikkee bil xasanati ci laa ilaha illa allah fa lahu ñeen na ko xayrun xayrun googu doo ko firee yiw lu ndax amul lu gën laa ilaha illallah fa lawu ñeen la ko xayrun yiw minha minha ci yoolu laa ilaha illallah boobu nga wax de képp koo xam ne dikkal na yàlla wax laa ilaha illallah yàlla dana la jox yool ci sabab bi wax gi nga wax laa ilaha illallah boobu de bàyyi mi ne jalaal lu doon sawaab mooy mu firee ko mu bañ koo firee laa ilaha illallah ne képp ku dikkal yàlla ci yiw rek yiw woo mën a def mu ne bu mu ko xatal yiw woo mën a def ci lu baax rek yàlla dana la ko fay dana la ko fulal mi ne loolu moo gënoon mu wax ko waaye ko firee ne laa ilaha illallah rek ne loolu moo gën dina ko bàyyi ci zaahiram rek képp man jaa bil xasanati fa lahu xayrun minha comme na nga ko waxee ci saaru lana am ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha képp ku indi benn bu yiw dana la fay yiwam mi loolu rek la ko waroon a bàyyi ci zaahiram loolu moo gën doomu aadama bi nag bu defee lu baax yàlla daf koy bindal yàlla wakkil na jaam bi ñaari malaaka muy raqib ak atid raqim moom moo nekk ci ndeyjooram ndeyjoori nit ki atid moom moo nekk ci càmmooy nit ki di nag moom mooy buurab atid du bind dara du dut ci ndigalal raqib la koy bind jaam bi yàlla ku baax la jaam bi bu ittewoo def lu baax te deful ko yàlla daf koy bindal benn yiw bu ko defee yàlla bindal ko fukki yiw bu yittewoo lu bon te deful ko yàlla du ko bindal yiw waaye bu defee nag lu bon raqib dafay wax atin na ko bul bind nañ ko bàyyi juróomi wax juróom benni waxtu nañ ko muñal buñ ko muñalee juróom benn waxtu tuubut mu ne ko nañ ko muñalaat benn waxtu muy juróom-ñaari waxtu ko muñalee juróom-ñaari waxtu tuubut mi ne ko ah bind ko rek bindal ko benn rek suñu waa ji daal dafa sàggan mënoon naa tuub bu yàgg ñu effacé ko waaye eh, eh, eh, bu defee nag lu baax yàlla bindal ko ko fukk de moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne toskere ñeel la koo xam ne dem na ba ay benn benn ëpp ay fukk fukkam de ndax loo def ci lu bon rek benn lañ la koy bindal loo def ci lu baax fukk lañ la koy bindal de waxum ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy jëf yu baax yi aminuna way hóolu nañ min fasari yawma izin min fasari yawma izin ci tiitag ah ci tiitag ci tiitag bésab keroog ba te mooy pencam yàlla de ñooñu nga xam ne ñooy jëf-jëf yu baax yooyu ñoom pencam yàlla ñoom ñooy dañ dañuy hóolu de man jaawaay bu dikkee ne bi sa yaati ci bokkaale fokku bat dëppeef bu juuhum ay xar seen fi naari ci sabara de hal tujzawna déefut fay leen illaa ma kuntum ndere lañ nekkoon taamaluna di jëf de wala wu ñeel na ko moom yàlla kullu shay'in lépp lëf lépp moom la ñeel de ah innama umirtu yonent bi ne wa wax leen ñeel leen ne innama umirtu naka digaleef nañ ma ana abuda ba ma jaamu rabba rabba hadil baldati borom bi la dëkk allazi dëkk ba nga xam ne xaramaha xaraamal na ko moom yàlla de man nag yonent bi nag wax leen ne leen man yàlla lim ma digal <clears throat> mooy ma jaamu borom dëkk bi di makka nga xam ne dëkk bi yàlla xormaal na ko xaraamal na ku fa tuur deret xaraamal na ku fa tooñ kenn du fa tooñ kenn duñ dagg ñaxam ma duñ rëbbu eh, eh, eh, duñ rëbbu ñanaawam ya képp ku fa daje woon ak ku tooñ sa baay ku rey sa baay sax doo ko gaaral ndax dëkk la boo xam ne yàlla moo ko moo moo ko moo ko xormaal du xurum la goo xam ne xurum ak yàlla la yàlla moo ko xormaal ba nga xam ne duñ fa def lu ñaaw de man nag yàlla digal na ma pour ma jaamu borom dëkk bi makka lañu wax ne mooy umul quran mooy ndëkki mbo mooy ndeyi mboolem dëkk yi waaye dëkk yëpp la ba ñu tuddee makka nag tudd nañ mboolem dëkk yi borom dëkk yëpp borom réew yëpp mooy yàlla subhanahu wa taala man digal nañu ma jaamu borom boobu da nga xam ne dëkk bi daf koo xormaal nga xam ne xaar na ko ba nga xam ne yaa jooja ak maa jooja buñ fa dugg dajjaal du dugg makka ñoom ñëpp duñ dugg makka yàlla moo ko xormaal ngoon ba nga xam ne benn buur du takk xare mukk jëm ci benn buur rek lañ ko mayoon ci kaw suuf mooy yonent yàlla Muhammad te benn waxtu la woon bi waxtu yu jeexee rek lañ éegalaat xaraamal gi leen ne benn buur mayutuñ ko moo tax bàyyi mi ne màkk mu amee sécurité benn dëkk ameewu ko yàlla moo ko moo ko moo ko aaral boppam de wala wu ñeel na ko moom yàlla kulli shay'in lépp la de woo umirtu digaleef nañ ma ak ko na bu ma nekk minal muslimina ci way jébbalu ña de way way wéete nañu yàlla de wa an atluwa ak ba ma jàng ak alquran alquran de yenentu baa ngoog nag nee na man lii lañ ma digal may jaamu yàlla te bañ koo sàkk ak sàkkal benn bokkaale ak tamit may ànd ak julli ñi lépp lu nekk ma nekk ci ak tamit may jàng alquran lii ñetti yëf yi moom la ma sama borom digal pour ma koy def de jàng alquran nag jaamu yàlla yëpp jaamu yàlla yëpp bu ci gën mooy jàngaar xuraan moo gën ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi li ñuy jaamoo yàlla jàngaar xuraan moo ci gën bàyyi mi ne lenn ci murit yi ci seen njëlbeen ak yeewu deneen waxtaan ak seen bakkan di soxlawoo yeneen ay dog di ko laal waaye teg ne loolu moo gën a màgg alxuraan waaye mi ne buñ demee ba seen njëlbeen deneen xam ne alxuraan moo gën lépp de loolu moo tax foo fekk kumal yi mag yi aarifine yi foo leen fekk ñoom seen wirdo yëpp alxuraan la jàng alxuraan rek de alxuraan rek la jàng ndax alxuraan ndax alxuraan mooy taabali bépp maqaama maqaama boo bëgg rek alxuraan moo la ko mën a jox mi ne alxuraan mooy taabali bépp yiw yiw boo bëgg rek alxuraan moo la ko mën a jox mi ne alxuraan mooy taabili bépp jaamu yàlla lépp lu ñu jaamu yàlla maqaamu bu la koy jox alxuraan alxuraan mooy taabili bépp xam-xam àddina ak àllaaxira kon na ngeen taxoo jàng alxuraan de moo tax aarif yi ne seen jëf yëpp la ca mooy jàng alxuraan yaa ngeen di fekk guddeeg bëccëg subaa ngoon ñu ngay ittewoo jàng alxuraan rek moom nañu ñuy def de jàng alxuraan nag ci téere bi di ko xool nii ci téere bi moo gën di ko jàng ci sag mokkal ndax boo koy jàng ci si téere bi sa bët bi mu ngi xool te bët bi xool bi ñu koy xool jaamu yàlla la ci moom sa loxo yi jàll bi bi kayit yi loxo yi tamit jaamu yàlla la ci moom sa nopp bi koy déglu jaamu yàlla la ci moom sa xool bi takk maanaay di ko déglu di ko seetantal jaamu yàlla la ci moom kon nag moo tax di jàng alxuraan di lee loo ko mokkal mokkal nga téye téere bi nii di ko jàng moom moo gën di ko jàngal sa mokkal de <clears throat> mi ne malaaka yi nag xéewal gi gën a màgg ci ñoom mooy di déglu alxuraan ci ku koy jàng buñ dégloo kuy jàngaar alxuraan da ngay gis dañuy ootante naan ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen comme ni ñuy ootee buñ taajee ñoom ni ñuy ootee malaaka yi ñoom noonu la ñu ooyee bu ñuy déglu alquran de kon alquran ngoo ku nekk war na di ko jàng bàyyi mi ne mujizaat yi bi gën a feeñ alquran daf cee bokk ndax ca njëlbeeni eh, lislaam la yàlla waxoon yonent bi ne bi laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu fa idaa qara'naahu fattabi qur'aanahu thumma inna alayna bayaanahu yàlla moo ko waxoon yonent bi bay jibril di wàccee ci moom muy muy jàng di ànd ak jibril yàlla ne ko yàlla ne ko bàyyi ko ba mu jàng gis nañ ne yaa ngi yëngal sa làmmi rek di yàkkamte pour bañ koo fàtte waaye bàyyi ko ba mu jàng ba pare bu jàngee nga jàng ànd ak moom bu paree ñun yàlla warlu nañ ne ñooy boole alquran ñoo koy boole te ñoo koy biral ci nit ñi moo tax alquran niñ biralee téere alquran ni niñ ko dajalee lu gisuñ benn téere bu mel noonu ana tawret ana linjil ana zabur téere yooyu yëpp boo ko bëggoon wut tey euh, pour nga am ko dama sonn da sonn wala tamit boo ko amee da fekk yowoot yi soppi nañ ci yu bëree bëree bëri alquran nag moom yàlla nee na moo koy dajale boo gisee ñi mokkal alquran yu bëri alquran nekk seen dënn yi loolu bëri na kenn xamul nu mu ar yàlla tamit waxoon ne moom moo koy biral moom yàlla niñ firee alquran amul benn téere bu ñu firee noonu daay man jamono ju nekk rek yaa ngi gis mu fassiroon yi ñu ngi bëri ci àdd bi ñu ngay firi alquran ñu ngay firi téere bi yàlla bi kon la yàlla digaloon yonent bi yëpp loolu am na de kon téere boobu yàllaa ko dajale amul benn téere bu mel noonu bàyyi nag wax ne ne xaw tuut sax doo fekk benn néeg lu dul ci kaw suuf lu dul kaamil alquran a fa nee na Senghor wax na ko ne sama néeg téere alquran man fa bi ne naa naag benn labbe làbbe bi ne ko ah, man téere bi yàlla bi mi sama néeg maa ngi kon nag téere boobu nga xam ne moom la yàlla dëxaloon yonent bi mi ne jamono ñu nekk dañ koy gis de ñu ngi koy jàng guddeeg bëccëg suba ngoon téere boobu ñu ngi koy jàng mi ne ba ba ba yàlla def na sax fi mu ne ay weñ ñooy toog di jàng alxuraan ay weñ ñoo koy jàng weñ ñu ñuul kukku ñooy jàng alxuraan de mooy yi ngeen di rek téléphone yeeg yëpp fi ne ñu ngi jàng alxuraan yëpp loolu yëpp yàlla la ma yàlla def na ko rek nag mu yàlla doon leen dimbale mooy alxuraan lañ lañ bëggoon alxuraan lañ toppoon ndigalal alxuraan rek lañ lañ bëggoon de ubbi na addina boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi yëpp Omar ibnul Xataab dugal na leen ci lislaam ba Europe Omar ibnul Xataab moo fa dugal lislaam de eh, moo fa dugal lislaam te Omar xamutoon xisaab xamutoon benn technologie xamutoon dara lu dul alquran yàlla bi rek moom la doon àtte woo de xuus nañ ay géej yoo xam ne amuñ benn gaal buñ fa jàllee lu dul seeni jaase de mu ne nag lu nekk def nañ ko te lépp rek téere bi yàlla bi moom lañ jàpp de mi ne nag jullit ñi nag li tax ñi tardé ci jamono ji mooy dañoo bàyyi alxuraan de waaye buñ jiitaloon alxuraan seen bépp yëf buñ dellu woon ñëpp si alxuraan dellu mi ne lañ bëgg yëpp kon dinañ ko am de mi ah, njiital ah, ministre eh, Biritaali def na benn congrès congrès bu rëy gannaaw boo xamee ne ah, war na àddina réew yu bari dem na fa mu def congrès bu mujj mu defee ko ci London Angleterre ba mu ko defee foofu nag mu ngi téye benn kaamil ci loxoom mu wax ne ne téere yàlla bi ak néega téere bii ma téye ak néegab yàlla bale ca makka ak néeg bale ca makka fekk ñi ngi sax ci àddina kon julli ñi duñ leen mënal dara de nañ nañ xeex ak ñoom ci suñ bépp kattan ak lépp luñ am ci doole ba fexe téere boobu jógee fi bàyyi mi ne kooku xam na suñ mbóot xam na suñ sirlu xam na suñ secret moo tax jullit ñi buñ sàgganee alquran mukk képp ku am doom say doom na ko dugal alquran de bàyyi mi ne jullit ñi doye di Pastef yépp fi mu ne tubaab yi ñëw nañ fii ci àddina bi teg fi ay école yoo xam ne jullit yu doy di Pastef yi la wax nag mi ne la ñuy njëkk def rek mooy seen doom yi ñi leen di dugal loo français duñ leen dugal ñu jàng alquran te loolu mi ne yàqute bu rëy la boo xam ne tubaab yi ñoo ko fi samb pour xeex lislaam ndax ñoom seen pexe yëpp mooy ni fi alquran jóge kon nag képp ko am doom war nga koo jàngal alquran na alquran njëkk ci dënnam bu fekkee yàlla def na mu mokkal muy cëram bu fekkee mokkalul cër ba mu ca mu am ko waaye na alquran jiitu ci dënnam ba ëllëg kenn du ko mën a yàqade ndax képp koo xam ne alquran jiitu na sa dënn dara du ko yàq de moo tax mi ne doomi julli ñi buñ sàgganee loolu ndax tubaab yëpp seen xeex loolu rek la pour fexe fi alquran jugee de te ba doomi julli ñi jàngatuñ alquran rek alquran daf fi jugee de bu demee ba kenn mokkalutu ko ci kaw suuf nag boobaa pencam yàlla taxaw de mi ne kon doomi julli nañuy jàngal seen doomi alquran buñ jàngee alquran nag ba pare métier moo leen mën a métier loo fekkee dañuy jàngi français ni dem jàngi ko fekkee dañuy jàngi anglais ni dem jàngi ko fekkee dañuy uti métier ñi dem uti métier mañ man a ut rek waaye na fexe alxuraan jiitu na seen dënd de kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man loolu dama yàlla digal de fa man ihtadaa ku jub na mu fa innama yahtadi naka juwam googu nafsi ñeel na boppam de wa man dalla ku réer na walis gam fa qul waxal innama ana naka man minal mundirina aji bokk laa ci way waare de wa qul waxal alhamdu cant illaahi ñeel na yàlla sa yurikum xam na ma wan leen ayaat yi ay mandarga sama fa taarifunaha ba ngeen xam ko de te wan na leen ko ca badar de wa ma rabbuka déer borom sa bi gaafilin muy aji sàggane bi gaafilin muy aji bayyi amma taamaloon ku nekk rek da eh, lépp lu ngeen jëf rek dana leen ko fay de allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidil awwalina wal axirin yàlla mu ko tàmbali baag si fi yàlla na ko àggale jàmm tuban ci ndog yaara bi yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla ko yàlla xamal barke cheikh ibrahima is radiallahu anhu barke alquran yàlla ka ko wasal ak ko wasal ci moom ak li tax ñu wasal ko ci moom yaara barke diine islam barke tariqa cheikh ahmed tidiane barke maam alhaaji abdoulaye barke baay allahuma salli ala